Président, Monsieur le ministre représentant du gouvernement, mes chers collègues maa ngi di nuyu di nuyu Sénégal askanu Sénégal les Sénégalais de l'extérieur nous avons fait la fa Nous jógee plus de pour réaffirmer encore notre position Nous nañ que devant le ministre de la justice le Parti démocratique sénégalais dafa assumer ses responsabilités ñun làkkutuwuñu nëbbutuwuñu ñoo jël suñuy responsabilité participer au dialogue kon conclusion ya fa jóge yëpp daf ñu engage te danañ ko wote ndax ay raison yu bari ñun dañoo am jaar-jaar am foo xam ne nii fa la ñu bokk am kilifa muy le président Abdoulaye Wade kenn mënu koo génnee ci histoire politique du Sénégal depuis bi ñu taxawalee suñu parti en 1974 ba légui dañu nek acteur principal ci lepp lo xam ni dafa jëm ci luy andi ci réew mi dal Té réew nag kenn mënu ko développer wala nga def fa dara té jamm dafa am lolu motax le parti démocratique sénégalais suñu ñu wowe ci waxtaan wo xamni dafa jëm ci luy andi jamm ci réew mi ñu wuy ji ndax suñu histoire ndax suñu jaar-jaar lan moo fi am ci politique ci luy indi jàmm ci réew mi lu dul loxo PDS def ci nekk kon ñun suñu jaar-jaar tey mun tax na mënuñu wax non damay dégg souvent nit ñi di wax ni dañu dem rek di waxtaane politique ma fàttali ni dialogue bi neuf commission la woon huit commission ak benn commission cellulaire am na yu bari yu ñu ko waxtaane bi ci des mooy ñi nga xam ne dañu bëgg a imposer une pensée unique dans ce pays di wax ni di wax ni dañu dem ndax seeni intérêt mais dama jàpp ni situation bii nga xam ne nii ci la réew mi toll ñu war ko waxtaanee nekkul loo xam ne nii gan la ci adduna bi démocratie nekk ci adduna bi yépp dañuy toog di waxtaan même dans l'Occident démocratie yi nga xam ne jàpp ngeen ni moo gën a parfaite wala moo gën a baax dañuy dem ba yàgg ñu toog ñu waxtaani seeni loi électorale parce moo leen fekk moo leen di stabiliser logique boobu noonu ci la Sénégal nekk ci la PDS wuy kon nag jàpp naa ni ñuy wax ni intérêt direct moo leen yóbbu li wet di loolu bari na dama ciy joxe benn rek bu ndaw waxoon naa ko keroog nee naa leen ku xam PDS ak histoire am xam ni depuis soixante quatorze ñu ngi participer ci ay élections amul benn boo xam ne nii mus nañ ko dem te amuñu trois cent mille voix est-ce que ñun kon intérêt la direct bu jëm ci ci ñun ñuy gàddu parrainage réforme bi di ko yóbboo dialogue déedéet mais dañu jàpp ni instrument la boo xam ne nii bu baax la waras na ko mën a parfaire ba permettre képp koo xam ne nii danga nga porter projet nga am bokk ci élection yi te loolu am nañ ko ci dialogue bi amuñu ñu instituer une commission pour contrôler le parrainage loolu ci revendication yi la bokkoon kon nag man li may wax mooy ñun nous sommes cohérents par rapport à nos idées et nos propositions c'est ce qui disait bu ñu bu ñu ñëwee fii à l'Assemblée nationale wala ñu crier ko ci plateau yépp ni dañuy def de telle sorte que ñu réformer article sangam article sangam pour diw sangam ak diw sangam bokkaat dama defe ni war nañoo mën a fàttaliku tam loolu ñun acteurs politiques yi nag gënuñoo muus sénégalais yi kon jàpp naa ni war nañu mën a xam bu baax a baax li suñu waxu démb ak suñu waxu tey ñu méngandi ko kon li may wax mooy ñun nous sommes au dialogue dañuy vote li jóge ci dialogue bi te loolu mooy suñu position làkktuwuñu nëbbtuwuñ ci li ci def ministre de l'intérieur directeur général des élections en tant que un élu de la diaspora inscription sur les listes électorales au niveau de Sénégal de l'extérieur ngeen jàppale ñu ca buñ ca àggaatee ngeen renforcer les commissions surtout au niveau de l'Italie il y a trois commissions au niveau de l'Italie Naples Milan ak Rome mais population yi tolloo wuñu yi nekk Italie soixante pour cent wala soixante dix pour cent c'est dans la circonscription de Milan konte nag soo leen yabalee commission à Naples yabal commission à Milan yabal commission à Rome ngeen xam ni Milan fa mbir ma nekk ñu renforcer leen da permettre sénégalais yi ñu mën a dund pour mën a def li nga xam ni mooy seen devoir jàmm la ñu bëgg ñun waa PDS ci la ñuy dox kon nag suñ ñu woowoo ngir jàmm danañ ci dem ci loolu nag ci lañ leen di encouragé ngeen jëm ci loolu